waaw ma ne jour bi nga xam ne affaire ba muy am. Mhm. ci sam la njëkk a daggee. Mhm. jël na sama doom bu jigéen bi quatre ans la am ñoom ñaa ñoo bokk école ba. na ko dem ak moom mën naa ne jour boobu laa ko gëj a gis ba ni may waxee ak yow. Mhm. visite yi daal moo moo ñuy boole jeex na visite yi quinze jours ba quinze jours. d'accord yaa ngi ne maanaam yaa ngi doon wax sànq nga ne euh, am na benn signe boo xamante ne gisoon nga ko ci moom jour bi nga xamante ne jour boobu lañ ko waroon arrêté. est-ce que loolu bëgg si ñëwaat. waaw parce que man jour da doon julli fajar julli na fajar ba pare di wérd. Mhm. di wérd ba ci yàgg kurus bi dagg. mu mhm. naan sama kurus bu bees bi rek dagg na. mu jël ko tas mu dajale per yi teg ko ci kaw coiffeuse bi. Mhm. man na sama xel xawoon na ñaaw tuuti rek ma ne ah garaawul mu jël. mobile tam kii doomam ñu ànd dem. Mhm. comme d'habitude rek ni ñuy xëyee di dem di jàngi mu dem jàngi boobu daal laa gëj a ba nii may waxee ak yow. xale bu am huit neuf di jàng ci benn école bu nekk fii Kinte 15 yaayam xëy na dañuy def attouchement ci moom ñu convoqué xale bi ak parent am directeur baa ngi taxaw directeur bi ne xale bi kan moo la def lii yaay ji ne est-ce que du élève bee ci ginnaaw parce que élève bi mi ngi xool sama doom ak di siggi rek am na xale bu ñu ko njëkk a jiiñ ba ay parent am bii bi Faye jàngalam doomam bu góor bu yàgg ñu tisati ay relation di wootante te winte mhm. ci la ko woowee ne ko yow li nga wax ci école bi di faral diw mais ma jing viol bi maa ngi koy dégg yi tax nga koy faral na jaaxal na ma waaye dinaa plainte ndeke ma mi wax loolu plainte na ba pare bi mu wax loolu fekk plainte na ba pare waa ji nag ba mu déggee wax jooju moom tamit dafa ànd ak beneen collègue am dem plainte ji moom it terewul moment yi may wax yow mu nga rëbës. d'accord moom doomam ci école bi lay jàngee. waaw doomam bu góor la wala bu jigéen. jigéen doomam bu jigéen ñaata at la am. ñeenti at ñeenti at xale biñ ne dafa egg ci kawam xamoo leen ñu ne xale boobu onze euh, bi nga xamee ne rumeur bi jóg na ñu ne xale bi dafa am beneen xale bu egg ci kawam yow ak sa ah, beneen beneen bi egg ci kawam moom laa lay wax mu xale ne dañ ko bañ dañ doon foyee kii bi mooy dañ baaraam moom la ñu moom mu am huit ans. Mhm. waaw xale bi egg ci kawam ñaataat. huit ans huit ans. ok keneen ki am onze ans. waaw d'accord bi nga xamee ne maanaam euh, ñëw na. rumeur bi jóg na ñu ne dafa am benn xale boo xamante ne dafa egg ci kaw beneen xale boobu noonu sa jëkkër wax na la ko. moom ba mu ba nga xam ne affaire yi sëf na. parce boobu yëg na benn wax buy daw ci biir école bi. dafa ñëw sama néegu goro toog sama benn sama ñaari njëkke ak benn paa bu fa ñëwoon boo xam ni mën naa ne moom mooy instant bi suñu as gardien. parce que depuis ba goro bu góor dëddoo ba léegi. moom daf ñuy nemmee si mën naa ne ci affaire ay ñaan yooyu lay kii daal parce que ñoom man ak moom ak sama goro bi ñoo daan nekk daaka. Mm-hmm. di dem ay daaka di ñaan yooyu. Mm-hmm. waaw ba sama papa boobu gaañoo ba léegi day ñëw ci kër gi dañu nemmeeku léegi mu am occasion nak sama papa boobu comme daf ñoo dénkoon sëriñ bii ma lay wax mhm. mu ñëw toog sama borom kër ñëw toog nag daan na tey ma wax leen li ngeen xam ne fan yi yëpp moo may tourmenté ba sama soxna di ci ba sama soxna di ci jaaxle woo leen ma ko sax mu ñëw ci la ci la ci lañ génn woo ko mu ñëw toog ci néeg bi ñu expliqué ñu expliqué ba mu expliqué ñu woo ko ba bañ ko wooyee ñu ñëpp ñu toog ñu expliqué daan ne fan yi yëpp sama soxnaa ngi nii muy man fan yëpp mi ngi ma naan lan la lan moo la tourmenté nekkoo damay tëdd ba guddi di la jékki jékki-jékki taal sama tos seen na nga fixé plafond bi lan moo xew ndekete boobu xale bu jigéen bi moom mi ngi dégg ñu ne xale bu jigéen bi ñu ngi naan est que dinaa ko jiiñ Moussa ndax Moussa ci boppam moo doon jàppale xale bu góor bi nga xam ne moom lañ jiiñoon ne moom moo baaraam toog da ko doon jàppale fu mu toll fu mu fëllee rek mu fëll feneen Moussa di ko jàppale jàppale boobu nag il faut que ça cesse daal kii ko dinaa ko dinaa ko kon kon kon kon ci say kàddu jëkkër maire bi nga xamante ne moom lañ egg ci kaw doomam ci li mu wax maanaam doon na tëkku sa jëkkër avant avant dara avant mu koy jiiñ madame. allo waaw. ma ne kon euh, maire bi nga xamante ne mu ngi doon tëkku sa jëkkër. waaw. avant avant dara di xew mu ngi ko doon bi bi ñu ko jiiñee xale bële boobu la commencé woon di tëkku sa jëkkër waaw wala déet. tëkku ko de tëkku ko woon de. Mhm. sama sama jëkkër da ko doon dégg ay rumeur la doon dégg. Mhm. waaye musul jàkkaarloog moom ba ñoom ñaar appel bi nga xam ne woo na ko. Mhm. di ko wax naan ko yow mus ñëw naa ci école ba yaakaar di nga ma jàppale. ma naan la élève boobu la nga naa ma du élève bi nangam ak nangam mën na ko yow ci appel bi appel bi nga xam ne sama jëkkër da koy woo da ko enregistré ngir bëgg rek lu leer ne ba nii ñuy wax ak yow mu madame Guèye jiiñul Moussa Faye dara appel bi mi koy wax ci appel bi naan ko maa ngi wax nga ngay jàppale diw yow lan moo ci sa yoon lan moo tax maanu woo ci lu tax maanu woo ci waaye waa brigade de recherche bi suñ taxawee buntu école bi ku daw dinañ la jàpp te ku changé numéro tamit dinañ la jàpp waa brigade de recherche moom bu soobee yaa man def naa sama ba pare te may waxee yow ci téléphone bi de audio yi moom su ngeen bëggee su paree sama goro dina leen ko envoyé waat na ko envoyé. loolu yëpp loolu yëpp maire bi maanaam euh, maanaam maire bi bi muy wax sa jëkkër sa jëkkër mi ngi koy enregistré yow li ngay wax nii lépp moom sa jëkkër am na ko comme comme comme comme audio. waaw am na ko comme audio. Mhm. téye ko nag woon ci téléphone am. Mhm. waaw ba mu ko téye noonu ci téléphone am nag comme affaire yi mi ngi doon moom nag ca la jékki-jékki nag affaire yi commencé ko ëpp loxo mooy moom it mu def pelentam daal di na benn xaritam bu mu àndaloon ci école bi lay la la nekk benn benn professeur la hmm. mi ngi ko naan mu lan la dalalal sa fit bi mu naan ko man yoonu police ci boppam laa xamul man xaw ma fii fii saa ma fi daan dugg affaire yu këyit moo ma fiy dugal ak carte man lii may def xaw ma ko mu ne ko gànnaayoo sa plainte ndax kenn xamul ma dem doy fan la jëm ak yow mu gànnaayu palantam te mhm. palantam ba léegi nii dugg na ci dossier yi dem na laajte nañ ko fii benn bés naa ko génnee teg ko ci sama loxo euh, euh, pap bu ndaw ñu yóbbu ko tribunal. d'accord léegi xale bi nga xamante ne moom lañ njëkkoon a jiiñ affaire bi xale boobu moom fi mu nekk nii dara fekk ko ci. dara fekk ko ci tam mooy bi muy menacé ci biir audio yi xam nga lu mu wax sama jëkkër. Hmm. Euh, moom mu ne ko man dañ ma waxoon naa def double plainte pour école bi ak xale ba leer na ba léegi lépp ci audio bi ba léegi waxul sama borom kër ne yaa def te fekk na ci audio bi nii fekk na def na plainte am ba pare léegi loolu lan lay nuru lii ku ko dégg lan lay nuru. d'accord mais ginnaaw bi ko police jël see yéen ngeen am loolu yëpp ci ay ci ay ci ay audio yoo xamante ne soxna soosu moom moo ko doon wax euh, ak ak yéen seen famille ak euh, école bi nga xamante ne nii fa la yeneen yi nekk dem ngeen ca police wax wax li xam ne moom ngeen xam. ci diggante bi mbala déet. kenn nanguwu ñoo jël ba léegi sax ay témoin wala ay kii ay enquête xam nga kan la ñu waxal directeur bi la ñu woo brigade de recherche man jour boobu dem naa sama benn beau-frère tamit ànd nag man ñoo dem pour rendre ko visite yóbbul ko ndékki booboo nekk jouru samedi du ma ko fàtte mu fekk nañ professeur kii bi directeur bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo toogoon ca saal ba muy jiñ xale ba directeur bi toog tegoon nañ ko fa di ko enquête. Mm-hmm. ba nii may wax ak yow waa brigade de recherche am na ku ñu fay wax benn chef boo xam ne chef tasewaat nañoo ñun benn jour tribunal mu ne waa ana sama booy bi mbaa génn na kooku jàppale leen ko deful dara te kooku homme de tenue la mais lii la wax billaahi lii la wax jàppale leen ko deful dara mais nag lu dos dossier bi bu xasee dugg dugg na kenn mënu ci dara sénégalais nag justice fii dafay metti ñun ñëpp xam ñu fii justice dafay metti tant amuñu preuve duñ la bàyyi duñ mën na la fa teg mandat mandat de dépôt lañ ko fa teg mhm. ñun nag loolu lañ mënu seetaan nga mu ba njaboot ñaari doom ah bàyyi fi njaboot ci am quatre ans ki mën naa ne moo koy gën a gën gën a gelu day yeewu suba teel des fois am na benn jour trois heures du matin la yeewu jug toog ne ma yaay anu sam papa man sam papa namu naa ko daf maa bàyyi woon école ba may jooy rek moom fan la dem may dëkkee ci noppam mi naan ko daa dem France te billaahi su ma ko wonoon fan mooy France si sa papa àddunaam dina tukki de chaque visite chaque mhm. visite muy muy muy muy muy insisté ne bu sama doom bi ñëw na ku ndaw ki kii nàmp rek na ñëw ndax kee bu ñëwee xam naa ni man ñu xam nañu sabar bu tas moom dina fa am ndax day bañ ne force fee papaam nekk man dinaa fa dugg fekk bi sam pap ñii mm. lañ koy dundee mu metti torop mm. dañuy jooy guddi jooy sama goro bi dafa jooy ba mu mën a tul waaw bu ñuy dem di day ndékki sa jëkkër ji sa yàgg na yàgg na di jàngale ci école bi foofu yàgg na depuis 2017 mm-hmm. depuis 2017 depuis 2017 mm-hmm. waaw ku mu yoratu sa doom sax moom dafa mën a sàmm kóllëre da woo mbaa diw mi ngi góorgóorlu ah dee ko bàyyi xel del lii del laa loolu lay sonne ci njabootu jàmbur hmm. sama njëkk yi nekk ci kër gi nii kenn du am problème mu kaye seeni doom ku ci nar ki kii mooy leen indi fermeture mooy ubbi mooy génne loo xalaat moo koy def hmm. soutien de famille la ñun dañoo ñàkk soutien de famille ñun hmm. ñun dañoo sonn ñun jooy nañ ko fu nekk nag fu nekk jooy nañ ko sëriñ yi jeexal nañ suñu xaalis sama yaay yoratul dara mi ngi doog a simi lundi bi passé la simmi sama goro bu góor moo dëdd woon lundi bii passé la la la simmi daroon ténj ñu boole naqar boobu mi ngi nii jeex tax kenn xamul lu muy nuro